civile bi moo xam Amnesty International la ak ñi nga xam ne ñooy waa RADDHO ñoom nag jamono ji li ñuy sàkk moo ñu ubbi ab enquête bu leer nañ ci ñi nga xam ne ñoo rey xale yi faatu ci manifestation yi yërekaay gi délibération ak réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñoo faatu ci jàppante yi am na keneen koo xam ne faatu waat na ni ki démb ca bi ñu naa benn xale la boo xam ne bu naa masaaña la tudd ay atam toll ci fukki at ak ñeent dafa amoon ay gaañu-gaañu yu métte métti mujj naa ñàkk bakkanam yéenekaay gi de la Tribune nee na ginnaaw yi nga xam ne jamono ji daat nañu koy di teg loxo yéenekaay gi nee na ñaari membre yu FRAPP France Dégage mandat nañ leen dépôt niki démb yéenekaay gi du l'Observateur xëy di ñu defal bilan bi nee lu toll si juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xam ne teg nañu leen loxo am na lu toll si ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xam ne defeere nañ leen am na lu toll ci téeméer ak juróom fukk yoo xam ne yóbbu nañ leen ci kaso yi yéenekaay gi de la Soleil nee ginnaaw manifestation yi nga xam am na lu toll si junni ci ay agent UCC jaare ci ndakaaru ngir ñu netawaaye dëkk bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne amoon na ci réew mi li nga xam ne moom lañu fi jot a yàq économie réew mi su doon dox jamono ji mën na ñoo wax ne dafay raam économie bi moo commencé gën a nërmeeloo ba tey ci biir journal bi xëy diñu xibaar naan ñu kuréel gii di ànd gësëma ñoom ñu yëngatu ci li jëm ci wàllu wér gi yaram gi mer nañu ba maara day taali ndax nee nañu manifestation yi nga xam ne doon na am ci réew mi bëri na ay poste de santé yoo xam ne dañu koo daal di saax-saaxee dañu koo daal di yàq bëri na ay ambulance yoo xam ne dañu koo daal di loolee moom metti kuréel gi di ànd gësama ma ngi ci réew mi quotidien yéen a kaay gi di direct news nee na njiitu réew mi di président Macky Sall moom ci boppam moo déconnecté ci aw askanam njiitu réew mi amul benn entourage boo xam ne maanaam ñoo koy wax dëgg entourage bu dëgër jamono ji Macky Sall yoru ko ndax ñi nga xam ne ñoo ko jege woon maanaam doon ko xelal doon ko wax naka la ak nan la ñooñu ñëpp Macky Sall dàq na leen yéen a gi di vox populi xëy wax ci njiitul Pastef di Ousmane Sonko ana lan moo tax jamono ji maanaam good fine bu tëddee mën naa nelaw ba yandooro ndax nag mbedd mi seen bopp ñoo teg pression ci ki nga xam ne mooy Macky la te nag médiation yi jamono ji ma ngay wéy assemblée nationale ñoom jamono ji ñaareelu immunité parlementaire Ousmane Sonko xalaatuñu ko sax jéem a naan dañuy woote assemblée ngir nag daal di koy voté ndax nag am na loo xam ne daal risque la yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko ma ngi savouré li nga xam ne mooy victoire maanaam ma ngi ne gundaandaat moom Sonko yéen a kaay gi du l'observateur nee na émeute yi nga xam ne am na ci Ndakaaru am ci biir réew mi bëri nag ay milliards yi milliards yoo xam ne Sénégal dina ko ci ñàkk économie si bii di Moubarak Lo nee na Sénégal li muy ñàkk ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn fu ko waaye natt daan na koy passé te image su Sénégal image su na yaxeet yaxeet yaxeet maanaam ci bitim réew yéen a kaay di réew mi quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu sudee am na ñenn ñoo xamante ni mer nañu ba maara détail yi mooy ñi nga xam ne ñooy mbër yi mbër yi jamono ji mer nañu lool ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum justice ndax maître Malick Sall dañu ko invité woon ci France 24 mu ne ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci mbedd yi moo tax nag ñoom Gris Bordeaux ñoom ki nga xam ne mooy maître Malick Sall maanaam maître Malick Sall mi ministre de la justice moom la a kaay gii de la sa xëy duñu xibaar naan ñu njiitu am njiit la boo xam ne maanaam dañu koo sëkkatal Sall dañu koo sëkkatal dañu koo taf ci miir bi yéen a kaay gii de la témoin mu xëy moom na ñenn ñoo xam ne jamono ji mer ñu ba maara détail yi mooy askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca Parcelles Assainies ginnaaw Moodu Njaay mi nga xam ne ñàkk na bakkanam ci jàppante yi amoon na ñi nga xam ne ñooy ndaw yi dëkk nag Parcelles Assainies ñoom ñoo ngi mer ba léegi nii ba pare nag di tuumaal commissaire bu Parcelles Assainies yéen a kaay gi la Tribune ñu xëy fekk fa Omar Touré mi nga xam ne moo yoroon enquête bi jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr te mu démissionné daal nay xëy wax ne ay principe am la ñu bëggoon a saax-saaxee daal di wax tamit ne état bu Sénégal dafa jël ay nit ñoo xam na ñoo koy topp yéen a kaay gi de nee na nag capitaine bii nga xamante ni mooy Omar Touré bu ñu ko tegee loxo jàpp ko bu mu leen bett ndax Omar Touré amul sañ-sañ benn yoon maanaam di démissionné ndax nag gendarmerie boo fa nekkee il faut nga am fu lu toll ci fukki at doog a am sañ-sañu démissionné te ba amul benn lettre boo xam ne maanaam jébbal na ko ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam journal bi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Éric Zemmour di ab journaliste boo xam ne ca diwaanu France la dëkk moom nee na nag mbir mi daal gudd gàtt njiitu réew France di Emmanuel Macron maanaam moo teg pression ki nga xam ne mooy Macky Sall ngir mu libéré Ousmane Sonko Éric Zemmour ne maa ko wax Emmanuel Macron moo tax ñu libéré Ousmane Sonko ndax moo teg pression Macky Sall ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa professeur Moussa Diaw di ab politologue nee na nag jamono ji mbir mi bu ñu ko doon évaluer doon ko xayma mën nañoo wax ne rapport de bi Ousmane Sonko moo ko gagné te Ousmane Sonko ma ngi ci posture bu baax yéen a gi du source a xëy bàyyi mbiri Ousmane Sonko di ñu xibaar naan ñu lu toll si ñaari téeméer ak ñeent ci ay sénégalais yoo xam ne jaaroon nañ ci ndox mi ba dem ca diwaanu bitim réew ca Espagne ñu leen andiwaat ci réewum Sénégal ñoom ñooñu nga xam ne nag ñoom la ñuy andiwaat am nañu naqar ak tiis yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Thiès nee na am na ñett jigéen ñoo xam ne dañu leen a violé ci benn hôtel yéen a kaay gi di Stades tàggat yaram ak huitième de finale yi amoon ci Ligue des Champions niki démb bi nee na Séville ak Juventus de Turin nañ leen di éliminer tey